So yana tenziyo. So yana tenziyo. PM PM baje kuna PM. Oh good rated. Oh definitely Oh, definitely. Oh, go. Mali, kule tabii, iwe kule tabii. Mali Sabahkan, besar, dan tiada.

yes sir jaay doole baaxul dem bul jaay yes sir ey jaay doole baaxul sa doole sa doole ey kada jadi doole wala bis ki dede DJ DJ parra parra parra parra parra DJ DJ wen DJ usu sena usu sena usu sena ey bibi ele fon dole le poluje Madame l'image, Paradam, kalian Tolea Soudoumen. donc non, ministre de la justice maître Malick Sall min ganndinma oɗo ministre de l'Intérieur, intérieur min ganndinamo farba c'est un corrompu farba c'est un vendu farba jiiɗa population mum farba jiiɗa añamnaɓe ɗum ɗo ko récépissé yummiraɓe babiraɓe foof nana dari farba nan nangi kaddante ko woni galle muɗum farba addi ko machine spécial galle muɗum kala gandanɗa hoorema waɗi inscrire o waɗi piéce ɓurɗunogota par ce que ɓen nani ɓe jaɗane makko hande o wadi modifié o waɗi modifié liste électoral añam o wadi modifié engagé pour la Mayonnaise. On veut modifier notre jour. Tout le peuple, c'est pour son intérêt. On est là, devant la mine de Mayam. Quand on va pas ici, ça doit faire avec Mayam. Ça doit faire avec Katarina. Nous, nous, nous, nous, Katarina. Nous, nous, nous, Katarina. Nous, nous, nous, Katarina.

yaha toɗel yaha bone waɗi yaha rewoye worgo e nettoya wotowoma dañam noɓe jaltan makko haala nde farɓe nde to wowul yohani jiggoyade wotoɓe caggal o yewi jiggoyade wotoɓe minen min jiggoyade wotoɓe min mbi farɓe ko yo addu kaeamen minen min jiggoyta Vai, vai, Milano. Vai, Milano. Vai, Milano. Vai, Milano. naate waro naate waro naate waro naate ɗiɗi fuɗɗo wara doon fuɗɗo momo so reke administration dañuy def ay fama ngom mais xamatuma si dara Billahi wallahi

amin namdi préfet homno farba gon waɗi ha waɗi rettire carte des agñamo wara ko ɗum min namdi min namdi ko holno farba waɗi ha waɗi rettire haɗa ƴetta carte yimɓe no mofta omo ƴetta samba mo wotira damba omo ƴetta damba mo wotira paade mina ko ɗum min namdi telandimel ngel mine ñun wa agñamo wa ñoye wax ak président makky sall ñoye wax ak ministre Malik Sall ñoy wax ak ministre de l'intérieur ñoy wax ak gouverneur de Matam ñoy wax ak sous-préfet de Matam ñun ñoy wax ak sous-préfet de Agnam dañ ko poser question man ñun du luñu jaxal lañu gis ñu bësul gis ci élection lañu gis Farba Ngom uh-huh. est-ce que moy ministre de l'intérieur wala moom ministre de la justice wala moom mooy préfet wala moom mooy sous préfet. moom mooy lépp nan la Farba Ngom. waaw retirer a ay carte citoyen. Uh-huh. loolu lañuy ñuy laaj. dëgg la Farba bu mu deful won transfert des électeurs de. waaw eh, ba mu wóoloo waa Agnam deful won transfert des cartes électeurs de. deugale la dëkk bu mu dëkk muy wuru siree. yes. def na la transfert 552 cartes. la ilaha illallah 552 cartes la frustré. kooku sax ca nga xam ne nii. nekkuñu ci commune ci commune bi. ñi nga xam ne nii mënu ah. mosuñu fi woote. waa Mauritanie. waa Podor. waaw ana Abdoulaye Daouda Diallo bii bii bii Farba de transfert seen électeurs yi xanaa yeegu leen ko. waaw Cheikh xanaa yeegu leen ko. dëgg la ba seen électeurs yi ñu leen indi fii di añam. dëgg loolu la war a lijjanti la. waaw ministre de l' intérieur naka dëgg la ñu ngi laaj sous-préfet. Ah. suñu yes Modou Lo d'en va yes nañu génnee suñuy carte yes su loolu waaw élection du am waaw waaw du am de ko du am te suñu carte génnul maa la nañ ko def yes waaye ñun li ñu bëgg ko def waaw parce que lañu